léegi mbokk yi ñu seeti Farba Ngom waaye jërëjëf jërëjëf jërëjëf xam nga laa laa ngeen xam xam nga laa laa bëgg ngeen xam ko xam nga am na ñoo xam ne dañuy dof dof eh dañuy jéem a kangaado waaye kangaado wul président Macky Sall du moroomu ñenn ñi nga xam ne dañuy toog ba mu nekk leen ñu jékki-jékki takaw naan waaw Macky Sall nii Macky Sall naa Macky Sall na le c'est pas donné à tout le monde de critiquer le chef de l'État duma nangu nag ku taxaw fële lekk ci lekk ba mu neex nga taxaw waaw président Macky Sall c'est que c'est comme ça c'est le malaise c'est le comme ça c'est le kii c'est pas ça xam nga kan lañu war a dàkk ci ci état bi médiateur de la république ABC Abdou Ban dañ ko war a dàq parce que lu tax ñu war ko dàq mooy moom munoo nekk fii ci nguur gi bokk ci APR naan élection yi ni mu demee boo lee dañ ko war a organiser waat dañ ko war a lii waa dañ ko xanaa yow bokkoo ci ñun bu fekkee ne da nga bëgg sa yoon la porte est kenn teewul kenn laa boo demee rek ñeneen ñëw parce que de élection jege na ñu commencé bëgg sonnal président am na yoo xam ne ça va pas marcher dans ce pays affaire chantage ça arrête si le président n'est pas avec toi il faut tu connais numéro téléphone nga woo ko wala lii nga wax ci média yi nga dem toog nga wax ko ki nga xam ne moom mooy njiitu réew mi noonu la nit di def eh man kenn yoon yu ma de man duma micro kenn duma haut parleur kenn man yéen loo leen foog dañu ma yónni maa yónni sama bopp. kooku laa bëgg nag tëjee ndax waxtu bi damay dem Fuuta man amatuma jot gis nga Aly Ngouille Ndiaye yéen ñii talla seen lammi ñu duuf yi takaw di wax Aly Ngouille Ndiaye warul wax lii Aly Ngouille Ndiaye warul wax lee Aly Ngouille Ndiaye warul wax lili Aly Ngouille Ndiaye warul wax lii mais ala ala ala bonni billahi ñii ñoo bon Aly Ngouille Ndiaye Aly jàmbur la Aly Ngouille Ndiaye jëkkëru jàmbur la topp rek ci bi Aly Ngouille Ndiaye Aly Ngouille Ndiaye boppam baa ngi metti nag Aly Ngouille la ah. déggee suñu la déggee ñoo xam ne dañuy ànd ak yéen seeni noonu la ñu. eh dama ne moo tey li mu wax da ko wax en tant que militant dinaa fekke ba président Macky Sall gagné premier tour. mais loolu loolu ba mu koy wax waxu ko ci cadre gouvernement cadre militant la waxee. waaw léegi loolu nag ñu ko jël jël di ko se askan bi di ko jaxase askan bi loolu c'est pas normal am na yoo xam ne du yoon nit ki boo amee lu la métti. xam nga numéro euh, président nga dem ci président nga wax man nag duma fi nekk gaaruwaal de koo xam ne tamit da toog naan ay président lii mu la def daf la bett nga dem ci émission di ko wax te yow kam nga président numéro kam nga këram demal nga wax ko lii may wax daal lenn la